salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ fàll ñu ngi lay nuyu bu baax man la Moustapha Diakhaté ñu may tudd di tudd président wu ASIR bu Touba. waaw situation ñi nga xam ne dañoo yàlla dafa dogal ñu am feebaru roño problème bi ci nekk mooy euh, day tawat ju metti joo xamante ni kenn da koo àttanul euh, ñu jaxasoog ñi nga xam ne moom lañ daal ca hôpital Matlaboul Fawzeyni di dem ba ci yàgg ñu découvrir ci lu lu lu bari loo xam ne xamuñu ko ci woon maanaam ña fa nekk di faju lañuy ñuy sonn ko si néew ñi nga xam ne ñi ngi ci te amuñu fuñ fajoo dañoo bari ba jaaduwul bari googu nag moo waral lan ñuy jóg di ci wut solution ngir ñoom ñu am fuñ fajoo te ñoom mënatuñ koo defal seen bopp il faut nit ñi rek ñoo leen di jàppale pour wutal leen barab yoo xam ne fa la ñuy fajoo ndax liste bi dafa jéggi dayo dem na ba ci ñetti téeméer yu teg dama koy bañ a lim ci ci ci média bi léegi nag biñ ci jógee ay ay jéego euh, ñu ni nañ jéem wut barab boo xam ne barab de référence lay doon comme Touba lim méngool ndax Touba tamit li fi nekk machine yi fi nekk dafa bëriwul yàlla dogal ñu am mbokk moo xam ne mbokkum taalu taalube la mu joxe benn terrain boo xam ne mille 1400 mètres carrés la ñu waxtaan ci ak xalifa yi fi nekk ndax malade yëpp jël naa leen yóbbu leen ci xalif général sëñ Sidi Maxtaar bi mu fi nekkee jël naa leen yóbbu leen ci sëñ muntaxaa tam ñu parafitoo waale foofu tam nuyu sëñ muntaxaa ziar ko ziar mbooleem kilifa diine ak cheikh yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi ndax ñoom lañ koy defal ñun dañ leen a wuutu ci taxawaay boobu ndax euh, loolu kenn ku nekk waran ngaa jóg sol ci saw daal la loolu moo doonoon itte ji nga xam ne ci lañ nekk dox nañ ci ay jéego tam ba sori nañ ci ndax liggéey ba tàmbali na Euh, sëriñ bi ñaan na ci yëkkati na ab lim tamit joxe ko ci am na ay mbokkam yu ko dégg yoo xam ne tamit ñu ngi ciy barkeelu waa ñu ciy woo ñëpp nag waa relation bi mooy malade yi ñoom dañ doon am benn association boo xam ne ki ko doon jiite ci ñoom da doon doon koo xam ne ku tawat la waaye dadul yàgg dara nag ndeysaan mu mu mu génn àdduna léegi nag ñoom comme doon naa fa dem di leen nemmeeku ci yenn jafe-jafe yi ñu def délégation ñëw forcé ma ci ni dañoo bëggoon ma dox seen diggante ak lu bari daal ñu dénk ma seen bopp yàlla dogal it kilifay hôpital boobu doon ñoo xam ne ñu ma jaxasool lañ ñu jàppale ma tam ci liggéey boobu ndax malaat bi nga xamante ni euh, day soxla trois fois par semaine dem ci machine bi nga xam ne ci lay defee jëlis defe naa di ngeen ko gis ci reportage bi kooku mënta jóg di doxali boppam itte ndax ay garabam cher na ay ordonnance am cher na li muy fay pour def jëlis cher na donc ñoom bi ñu defee loolu nag loolu moo sabab man ñu dénk ma seen kàddu ndax ñoom joteetuñ fa nga xam ne fa la nit ñi di waxee pour ñu fajal leen seen soxla du ci wàllu nguur gi du ci wàllu kilifa diine yi loolu moo taxoon maanaam nga nga di ma ci dégg relation bi ma am ak ña ña leen di fajat seen taxawaay bu rafet moo ma ci jotale ndax lépp loo xam ne luy njariñul malade yooyu la saa bu ñu leen ko waxee rek danañ ñu ci jàppale ndax malade ya fa nekk di faju te nekk 28 yàlla dogal na hôpital bi ci njiital directeur ba fa nekk euh, ak taxawaayu néphrologue bu baax ba fa nekk jàppale nañ leen ba 75 pour cent ci liñ daan fay ci hôpital bi fayatuñ ko ñu am yeneen partenaire ku mel ni Mamour Sène mën na maa tudd turam moo leen di gàddul rajo ak échographe ñooñu dootuñu ko fay bu ñu waree dem fenn tam danañ xool ki nga xam ne amul fond ñu xool na la ñuy def ñun ba jàppale ko te it loolu nit ñi rek ñoo koy def waaye du man maa koy def man damaa seen diggante ak nit ñi waaye nag du ma nangu ñu seetaan leen ndax comme dañ ma yaakaar ba dénk ma seen bopp man lu ma leen defal rek damay jàpp ni doyul projet bi ñu am mooy euh, cent mètres carrés yooyu ma la wax te ñu tàmbali koo tabax ñi ngi ñaan yàlla mu àgg ak jàmm bu àggee liñ ci nisër bu fekkee suñ borom dogal na ko danañ am centre de référence boo xam ne Afrique de l'Ouest benn la fiy doon ndax fas nañ ci yéene def quarante cinq machines yoo xam ne euh, euh, liste d'attente moom dootu amati Touba. ñaareel ba mooy dañ leen di gunge ci paj mi jàppale leen euh, ndax préparé nañ ci sax même bu fekkee dañoo dem bay def grève rein nga xam ne dañuy changé ci Sénégal bëgg nañ bu ko Dakar defee rek Touba nekk deuxième position ñi ngi préparé tam ay cabine foofu yoo xam ne dañ fay former ay nit ñoo xam ne jalis à domicile même buñ ko waree defal nit ki ñu defal ko ko ñi ngi fay préparé tam barab yoo xam ne maanaam euh, bëgguñu di ko wax mu mel ni dafa war a ñi mais maar koo xam ne bëggu naa bëgg na faa dugg ci sutura te kenn du ko xam am na ay cabine VIP yoo xam ne nit ki day ñëw dugg ba génn te kenn du ko te kenn du ko gis ñun nag lañ fay defakus néew bu noppee hôpital ba lañ koy jébbal ndax ñun lu luñ suñu xeex mooy malade yi am fuñ fajoo waaye ñun du ñuy docteur buñ paree dañ koy jébbal hôpital ba mu boole ko ci ab liggéeyam. waa sama kàddu yu mujj mooy di sant sëñ Muntaxa ci euh, dégg gim dégg lii te démb la ko déggoon njëkk muy nekk xalifa général ndax amoon na fa am malaat muy accompagne ñu bu baax a baax ci malaat yi lépp luñ soxla mu di ko def bi lee amee daf ne la ma nekkoon démb dama koy yokk dafa yëkkati ab lim mën naa la ko tuddul fanweeri million ni ma tàmbaleel te nga woote ñëpp wuy si la ndax lii ñëpp nga ko defal kon may ñaan yaakaar ji mu am ci man ba ba jël yëfam jox ma yaakaar jooju yàlla bu mu tas te it liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy yaakaar ci man muy moom ak malaat yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñu mel ni ñoom lañ ñi ngi ñaan defal leen lu kawe seen jot ba fu fi taal bi mën a nekk wala mbokk bu yaramam su taatee buy faju ji ñu yombalal ko ko balam ca bëgg mu am ko te du ànd ak fitna ndax bari na kilifa yu ne ci dëkk bi yoo xam ne dal na leen dañoo gàddaay ñi ngi bitim réew mënatuñoo nekk ci réew mi bari na ñoo xam ne tamit fi lañ dëkk dañoo gàddaay ñi ngi ci yeneen gox ay Matam ay Kédougou ay Tamba ndax ñàkk place ci Touba bari na ñoo xam ne nag moom euh, yàlla da cay def la gën ndax da ngay faju te ñëpp amuñu ay moyens euh, bërki démb rek am nañ ci koo xam ne suñ mbokki tuubaakan yi ñooy ay sëriñam bi biñ découvrir ni dafa am jalis amul place benn yoon la dem Dakar 65000 la fay bi mu waree delluwaat daan diw dafa faatu donc yu mel noonu rek lañ doon xeex waaye ñun duñ ci dara lu dul dañuy ñaan rek sëriñ si ak kilifa yi jàpp lañu ñu tabax centre boobu jébbal ko sëriñ bi mu jébbal ko hôpital bi population bi jariñoo ko